boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Cheikh Mouhamadoul Mountakha ci turu mbooleem waa daara Hizbu Tarxiya ak turu mbooleem suñu bokki dongo yi noo ngi lay nuyu di la ziar di la sant noo ngi nuyu sa mbokki bopp yi tëdd yii nga xam ne ñooy njabootu sëñ Tuubaa gi su ma ci tuddee Cheikh Mamadou Bachir ibnu Cheikh Abdou Khader mi nga xam ne moo yor sa kàddu ak kilifa yu tëdd yi nga xamante ne ñun ñëpp njabootug sëñ lañ ku ma ci tuddoon rek sax day doy dinañ yóbbaale ñi ci des noo ngi nuyu kilifa yoon yi nga xam ne ñooy njabootu seex yi seex yi sëñ Tuubaa yi ndax maase nañ ci xam ne. isbu tarxiya seen alal la ndax yaa ñu tuddee woon soldaaru yoonu murit te xam nañ ne soldaar moom ñépp ko bokk noo ngi beral itam ab nuyoo waa Touba ak bokki jullit yi ak bokki taalibe yi fu ñu fi mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew ak bokk yi xarit yi am di jàmm yi di leen sant leen gërëm ndax ku fi teewul itam sa yéene teewal na la fi bisub tey bii nag Mbakke bisub tant sant la ci nun boo xam ne dara féetewu ko kaw cant gi nag li ko sabab mooy ñaan gu nangu gu nu yëg ci suñu xol ak aajo ju faju te loolu yow yow miy yaa nu ko fàggul yow la sa ñaan nangu nga yóbbaale nu yóbbaale ndongo yëpp yóbbaale lislaam yëpp buñ ko xoolee ci li mu gën a jege yaa digle woon daaw ci lu war a tollook at ne ne na njabootu Hizbut Tarqiyyah gépp doon benn bi nga koy def danga cee teg ne Hizbut Tarqiyyah benn la mën a doon wax itam ne dama ko seet ba xam ne ànd gi mën naa am ma soog koo digle dolli nga ci itam ne déele ne mbooloo mi dina gën a am doole liggéey bi dina gën a taaru te dinañ fi dajeeg ngërëmal Serigne Touba. loolu nag Mbàkke fa saasa la ñu xam ne soobu ci ndigal li fas ko yéene def suñu kem kattan moo ci suñu wàll ndax am na loo xam ne doomu aadama mënu ko yàlla suñu boroom moo ko mën a gàttandu defal ko ci tawféex kon lii xéewal la gu rëy goo xam ne defaluñ ko suñu bopp loolu xam nañ ko bu wér pàggutéefu Sëriñ Tuubaa la boo xam ne soob na yàlla mu defal ko ko te yow mii la ko teg ci sa loxo euh, lii moo waral bi sa kàddu daanoo xol yëpp nangu ko maase ci nangu ko dong yëpp itam am ci dalum xel am ci mbégte akuk cant looloo waral ñu bari ci mbooloo mi waajuñu xaaruñu dañoo dikk fi saa si ànd ak ñun ñu sóobu ci liggéey bi lii lépp nag Mbàkke li ko yombal ci yow mii na nekk ndax ku xool ci say jikko xool ci say melo yu tedd yii xool ni ngay wommatee donge yi jëme leen ci bëgg lu baax bañ lu bon wan ginnaaw àdduna jublu Serigne Touba ak xemmeem loo leen ngërëmal Serigne Touba gi nga xam ne mooy ngërëmal yàlla te ngërëmal yàlla moo dàq àjjana ne ko alquran waxee wa ridwanun min allahi akbaru dalika huwa al fawz al azim ci sóoratu tawba li lépp nag day wane ne ah, xool ci yow rek dar ci yow dara dootu ko gàllankoor te it loolu mooy rafetal itam doxin wi sunu cant nag mbàkkee sunu diggante yow dañu cee xeeb sunu bopp xeeb ci sunu kàddu loolu moo waral ñu jël ci kuréelu xaside yi lu tolloog junniy nit jox leen fukki way ak ñaar yu ñu jukkee ci xasida yi Sëriñ Tuubaa yi ñu jàng ko léegi dañ ciy feeñal feeñal ci sunu cant ñaanal la nga yàgg fi te wér te mottali sa mbébét yépp ci toolu Sëriñ Tuubaa sëñ Ablaye Diop dikk ci loolu ba noppi ma door a àggali waxtaan bi. المقيم للرؤساء نعم العزيم نعم الكريم نعم المقيم للرؤساء ma الجنة وفاق كل بالأدعياء عليه سلم ولم رفاقا ولا يعزم بالأذكياء لك المعجزات الخر يا خير سيد عليه la kon fukki way yi ñu jukkee ci xasida ak mawaahibu naafi ak ñaari way yi ñu ñu ko tëjee jële ko ci xasida muqaddamatul amdah dañu ci gis taxawaay boo xam ne sab cër la Mbàkke di pàgguteefu Sëriñ Tuubaa boo xam ne bokk na ci say jagle laqad laqad mu lakal muizaatul xurru yaa xayra sayyidin aleyka yaa jaamiha chammi laqad kunta sabbaaran shakuuran wa naasixan aleyka salaamullaahi yaa maahiyal jahl lii nag Mbàkke raaya lislaam la joo xam ne yëkkati gu ko ba mu kawe àdduna sépp di ko gis te ndam lu yoonu murit am lii moo ko ko may ku la xam xam la ci muñ ku la xam xam la ci sant sa borom ku la xam xam ci sax ci liggéeyal Sëñ Tuubaa ku la xam xam na ci gindi nit ñi di leen dimbali di leen laabire looloo waral itam ñëpp nangul la Mbàkke jërëjëf dellusiwaat nañu tey ngir yeesalaat sunu jaayante ci yow di la jébbalaat sunuy jëmm ak sunuy alal di xamal àdduna sépp ne nosuk Hizbut Tarqiyyah nosuk Hizbut ak baat bi ci sa loxo la nekk te seexoo ko kenn ndax alal yi sëñ Tuubaa te yaa ko fi nekkal kon dellu si waat nañ tey sëriñ bi ngir yeesalaat sunu jaayante ci yow di la jébbalaat sunu jëmm ak sunu alal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 ndax noonee rek la ko sëñ Tuubaa bëggee moom mi wax ne ni ngay ànd ak sëb sëriñ mooy wëkkun la daa cheikhin la daa cheikhin ka ka maytin wudi an bay na yeday xaasilihi tantafi ni néew rek ci loxol ku koy sang loolee suñu wàll suñu diggante ak yow noonu rek lañ fas yéene ànd ak yow li ci dolliku nag mbàkke mooy addiyee ziar bi dëgg la yàgg nga ñoo wax nañu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 moo xam muy école yi tool yi jur gi machines yi waruwaay yi télévision yi rajo yi atelier yi mbooleem jumtuwaay yi loolu lépp moomeelu sëñ Tuubaa te yaa ko fi nekkal suñ jëwriñ de sëñ aatu yàlla na ko yàlla suñu borom fayal nu ko te dolli ko ay ngërëm euh, taxaw da ci lool taxawaay bu ràññee ko ci sàmm ko alali Hizbut Tarqiyyah ak ñoŋal ko ak teg ko ci yoon wu leer woo xam ne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 moom lu mu wax rek moom lu mu wax rek daf may fàttali sax ndax kuréel bi neewoon nañu nag Mbàkke kuréel bi de kuréel bi de neewoon nañu dañu la bëgg a rek xasidatu euh, ziar moom moom yaaman bi am ndaay yi dañ la rek jox la rek bisimilah.

الحليم مقتدير يا مرتبى يا إمام المرسلين أمان يا من بخدمته معيذ أبدير صلى عليك بنا Amen. كدار من جادني بكافي bëggee am mboolem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mboolem vidéo yi fi bàyyikoo